mobilier urbain yi bokk na ci point de regroupement normalisé mooy cases yu vertes yooyu ngeen di gis ci kaw eh, ci ci yenn ci koñ yi euh, point propre yooyu ci la bokk Euh, caisse polybène yi ci la bokk point de propreté ci la bok yi nga xamné actuellement am nañ ko ci acte route route nationale yi yu ci melni bo boo jógee Kaolack jëm kafrine yang ko fay romb am nañ ci tamit suñ pôlu mbay yu 660 litres yu verte yi nga xamné yang ko gis ci ko tali donc yoy mo ci la bokk donc stratégie bi liko waralon manam dafa am liggéey bu am solo bo xamné ak wa mairie defoon nañ ko fi manam ñu curer caniveau té te xam nañ ne caniveau yi amul couvert donc euh, population bi day faral di jël mbali di ko fa soti donc pour wàññi lolu wala pour dindi lolu dañu ñëwoon léegi nag dañu jël point yoy point propre yooyu teg ko ci wetu caniveau xeyno amana lolu buñ ko defee population vraiment au lieu muy jël di ko ci biir mbali dina jël soti ko fofu lolu actuellement am nañ ci vingt cinq euh, ñaar fukk ak juroom yo xamné mi fi biir Kaolack pare na d'ailleurs dinañ ko inaugurer jeudi Euh, monsieur Mass Thiam DG bu SONAGED moo ko nar a inauguré moom ak naataango monsieur mosieur la monsieur le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup yi nga xam ne vraiment ñoom ñoo ko war a inauguré am nañ jortu ne bu rafet ne vraiment ak point propre yooyu noonu am na yu bëri yoo xam ne incha allah problème yu bëri wala débordement yu bëri yoo xam ne doon nañ ko noté biir Kaolack incha allah dina saafaraw waaw effectivement xam nga euh, teg point yooyu noonu maanaam point yooyu ñu tabax dafa bokk ci suivi donc comme ni ma ko waxee sànq dafa am liggéey bu am solo boo xam ne defoon nañ ko fi de fi curage boo xam ne mën nañ ne sa mosu fi am Kaolack fi ne mais loolu boko ko defee ba pare amoo dara lo fa tek vraiment dafa yàquwaat looloo sabab lu won nak vraiment euh ñi tek point propre yooyu non donc nañ xam point propre yooyu dañ ko tek manam pour pour pour euh, euh, assurer vraiment cette pérennité là li nga xam liguey bu am solo bi nga xam ne loolu nañ ko fi def ba Kaolack yëpp tek ci seen bëtt vraiment euh, nga xam duñ ko ñak looloo waral vraiment point yooyu non mi xamné ci dafa bok ci activité suivi UCG nak saa yu defee ay activité dina am lo xamné astout lo xamné dina jël teg ko fa as tuut bi nag mooy ci la jëm ci point propre yo noonu tabax nañ ko Il lui première phase bi amna yenen 25 yo xam vraiment prévoir nañ ko tek fi ci biir Kaolack ñi commencé identifier ci di identifier nañ ko sax ak waa mairie valider ko rek mo des yi nga xam yoy non fi nga xam am nañ camion problème de déficit correct wala xëy na camion, yi lañ fay jaar wut ndax amna ay quartier yo xam camion yi pour ñu dugg fa day xaw jafé jafe lool ñu jël ñu tek ko fa pour permettre vraiment population bi ñu mën di eh, tàqali ko seen balite waaw xam nga comme ni ñu ko waxee ah euh, xam nga bokk na ci kiiw UCG devise UCG ñu améliorer le cadre de vie et satisfaire la demande sociale satisfaire la demande sociale maanaam foog nga liggéey ci qui ci euh, utal ni xale yi xëy ci la donc euh, actuellement UCG recruté na ci commune de Kaolack rek yu toll ak ñeenti téeméer ak juroom fukki nit yo xamné UCG mi ngi leen di fay weer bu nek donc lool na ñu ngi leen di réparti ci ñaari programme benn bi plan d'urgence la won bi nga xamné euh, suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow.

boo xam ne programme spécial bu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall vraiment moo ko lancé vraiment ci lañ leen recruter donc nañ xamné dal nit ñooñu agent yoy non ñi ci UCG di rafetlu seen liguey tamit ndax lool tay buñu démé bay taxaw nan UCG liguey rafet ndax ñooñu tax les volontaires de la propreté waaw xam nga comme ni ñu koy faral di def rek UCG moom ñun dañoo jot ay ndigal yu leer ci suñu DG muy Mass Thiam daf ñu ne vraiment lépp luy les les fêtes religieuses maanaam feetu diine yi nañ ci am taxawaay bu ci mat donc noonu lañ ko yàgg defee chaque année nag xëy nañu am lu ci yokk donc ren tamit euh, euh, préfet tamit convoqué wu na déjà CDD ndax préfet moom day teel a jël ay matuwaayam euh, def na benn CDD.

di wax leen ne nañu xam ne caniveau yi ak yenn ci koñ yeeg yenn mbalit yeeg yenn point yeeg yenn yenn tal yi yooyu waruñ fa sotti mbalit actuellement ni mën nañ ne Kaolack euh, camion yaa ngi circulé fu ne ku mënut xaar camion bi nit am nga alternative mooy nga dem ci suñ mobilier urbain yooyu yu toll ni mooy point de regroupement normalisé PPI euh, caisse polybène yaa ngi fi ak vraiment tamit euh, bac yu 660 litres yi ñu fi pour lu mbalit yi donc actuellement population bi am na

cofeel ci suñu agent bi ndax xëy na gis na li ñu commencé def di rafetlu loolu donc di leen ci ñaax rek ne ñun dañ ciy jàpp incha li ñu war ci liggéey bi dinañ ko def waaye ñoom tamit nañu oyofalal yëf yi ba nga vraiment dinañ dem ba nga xam ne mën nañ ne Kaolack euh, ville ville ville propre ba dem ba ne xëy na Kaolack sax moo gën a euh, set ci kaw euh, ci Sénégal dem ba commencé dindi ci xelu nit ñi ne Kaolack dafa salte ñun suñu objectif loolu dañ dem ba képp koo jël mu dëkk bi Sénégal euh, mu génne ci boppam ne Kaolack dëkk bu saltal la ci la ñuy dox incha allah am nañ yaakaar ne dinañ ci jot.